Pape Birame euh, Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Pape Birame Diallo nga bokk ci union nationale des syndicats autonomes du Sénégal ngeen euh, fas dem grève di di menacer lan moo ko waxal exactement si yaatal. waaw sunu bureau national dafa réunir samedi euh, responsable yi ñëw jógee ci gox yëpp gox goxaan yi. Euh, bi ñu dajee ñu analyser maanaam situation dëkk bi pour réew mu toll ci wàllu liggéey yëngatu yi ci biir gox yi secteur d' activité yi bi ñu analyser ñu gis ni daal am na secteur yu sooxe ak maanaam tension yi nga xam ne ñu ngi persister surtout secteur bu mel ni ak suñu syndicat bi nga xam ne mooy SAES e donc porte ci une grève bu ñuy grève mooy nañu ubbiwaat jàngukaay yi ñu xale yi ñëw étudiants yi ñëw reprendre cours yi normalement ci ay mesures yoo xam ne gouvernement bi mën na assurer sécurité bi am nañu jumtukaay yi am nañu ay force de l'ordre de sécurité yu xarañ yoo xam ni mën nañu fexe jël ay jumtukaay ba aar université bi ba jàng am bu mucc ayib loolu benn la te bu ñu ko dalee ñaxtu ak léegi ñu ngi koy wax boobu ba léegi amagul saafara dafa naa li ministre bi tontu loolu du du saafara lu ñu bëgg mooy nañu ubbi nañu wax télé bi nga xam ne mën nañu ubbi université yi ñu commencé jàng c'est vrai am na xajam-xajam si wàllu politique mais loolu gouvernement bi am na capacité maîtriser loolu ba sécurité bi dellu si waat jàngukaay bi ci des mooy enseignement moyen secondaire respect des accords boo signé ay accord ba pare da nga koy respecté boo bañee respecté accords yi kay gars yi dañuy dellu boo kon bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bàyyee bu dee classe yi bu ñu boycotté classe yi nga daal di jël ay mesures pour delluwaat ci maanaam accords yi nga signé woon loolu beneen jalgati la boo xam ni waxuma la yow respect des accords yi nga si ak ñoom respecté wu ko nga ne léegi wax ngay jalgati li nga xam ni déjà ñoom ah, amoon nañ ko comme avantage ak loolu du dëgg du yoon loolu yoon waxulu donc dama yaakaar ne li ñu war a def mooy ñu woote ñu toog ñu jéem a trouver maanaam solution. saafara mbir yi moom moo gën ay menaces yi nga xam ne tuuti dara lu dul da ngay radicaliser wu ñoom ñu radicaliser wu mais loolu baaxul ci école yi baaxul ci xale yi baaxul ci jàng xale yi jàng. li ci mooy collectivité territoriale. Mm-hmm. ah xeex bi yàgg na. parce que léegi ñu ngi xeex pour li ñu làq seen ak ak seen yelef parce que am na nañu droit ci demander revalorisation salaire gannaaw bu état maanaam secteur public. yokkee salaire yi yokk régime indemnitaire bi ñoom dañu demander alignement rek ci kaw ñu ñu méngoog seen i yi ñoom en tant que travailleur loolu am nañ ci droit te gouvernement bi war na ko mën a saafara bi mu gën a gaawee bi ci def mooy justice ñoom ñu ngi weeroon seen gannaay léegi ça fait presque ñaari at a ngi nii ñu wéer gannaay gannaaw bu ñu xeexee depuis deux mille dix huit président de la république arbitré ñu jox leen maanaam ñu jox leen ñoom ñoom am nañu droit bi ñu bu ñu leen joxee raison ministre de la fonction publique waroon jël benn décret pour mën a réformer statut greffier yi ak euh, les euh, les agents fonctionnaires de la justice boobu ba léegi mi ngi traîner moo tax nag ñoom it ñu daal di xëy jëlaat seen jëlaat seen matukaay déposé waat préavis de grève commencé engagé ay mouvement beneen bi mooy li nga xam ni ñëpp ñu ngi koy jàmbat ci réew mooy man prix yi nga xam ne njëg yi ñu ngi yokk maanaam bu doon bu doon danaan jaar ci eh, escalier léegi mu ngi jaar ci ascenseur loolu kenn mënu ko dékku population yi sonn nañu pouvoir a liggéeykat yi wàññeeku na bu metti metti léegi nit ñi loos nañu tàyyi nañu mënatuñu dem loolu moo tax ñun bu ñu dajee ñu ne gouvernement bi ne ci trouver ay mesures saafara mbir mi ni mu gën a gaawee wa illaa ñun dinañu déposer un préavis de grève fii ak ñaari ñaari ñaari ay bés loolu daal mooy ndëgëndiku bi nga xam ni ñu ngi xaar gouvernement bi def ay jéego ubbi waxtaanu yaatu wa illaa ñun ñu déposer suñu préavis de grève mobiliser suñu secteur yi nga xam ne tey jii ñu ngi en lutte am na benn secteur tey te bu yëngatu tey muy secteur IFA ñu ngi yëngatu ñoom it ñu ngi dugg ci biir mouvement bi ñu ngi contesté. ah boo demee au niveau des banques tamit CBAO liggéeykat yi ñu ngi grève pendant presque weer a ngi nii ñuy grève takk nañu seen i salaire yooyu yëpp ñu ngi continuer di grève compte yi arrêté nañu bloqué ne kenn mënatul dem clients yi dem seen i compte banque pour trouver xaalis mais yooyu yëpp ay problème la loo xam ni ay lu mu jur kenn xamul mu toll ci maanaam maanaam di perturber liggéeykat yi di perturber secteurs yi buñ ci jëlul matukaay ñun dinañu mën a jël saafara déposer préavis de pour yëngal waaw léegi si si si si dund gu cher googu ba léegi aussi Pape Birame gis nañ ni li nga xamante ne mooy facture ndox yee courant yi aussi yokk bi dafa jéggi dayoo consommateurs yi gis nañ ni Senelec ak Sen'Eau dañoo multiplier facture yi ay par 4 wala sax par cinq en tout cas daal mu nekk facture yu jéggi dayoo situation boobu noo ko gisee. mais mais kenn mënatul mënoo comprendre yow tey jii même facture oyofal yi nga daan fay cinq mille francs mën ci am weer ak lu topp léegi facture boobu mënatul def sax ñaari jour yu oyofal asamaan lañ ko tër classe yi jëkkoon facture yi mi ngi triplé ba nga xam ni nit ñi mënatuñu ko supporter ñu ngi ñoom ñu ngi accusante nag mutuellement ñoo commission de régulation bi moo ko def sax na léegi mu ngi accusé de commission de régulation bi commission de régulation bi ngi rejeté mu ni bon kooku c'est c'est la faute de la Sénélec mais ñan kan moo am responsabilité boobu état il faut que mu taxaw ci loolu wala état subvention bi mu doon def ci prix yi daf ko wàññi daf ko dindi ci prix euh, à la consommation est-ce que état bi dafa dindi loolu ou est-ce que tranche sociale yi dañ ko yokk loolu moo tax ñu laaj étude étude bi ñu ngi en cours ñu xool te leen le niveau réel d'augmentation ñu mën ci prononcé wu pour wax gouvernement bi vraiment métti na il faut que mu diminuer il faut que mu baisser la prix donc la facture de l' électricité ça coûte excessivement cher ak bu ndox bi tamit il faut que ñu baisser prix yooyu waxuma la nag ak Sonatel aussi bi nga xam ne moom mi ngi mi ngi mi ngi yokk mu ko neexee rek mu yokk impulsion yi kenn xamul kenn mënatu ko contrôler commission de régulation yi war nañ ko redynamiser ba liggéeykat yi centrale syndicale yi am ci tooyaay ñu ko mën di ko surveiller na waree. waaw Pape Birame aussi ñu gis ni est-ce que yéen sax euh, si situation bi ak euh, seen grève bi ngeen bëgg a def est-ce que aviser ngeen saisir ngeen au conseil du dialogue social. ci situation bi maanaam est-ce que aviser ngeen au conseil du dialogue social. waaw conseil bi def na lu mu war a def. bii problème yi amee ñu saisir leen secteurs yi saisir leen ñoom ñu war et demander rencontre audience avec le premier ministre ba mu toogee boobu ba léegi wax dëgg yàlla xam naa ni premier ministre jàpp na problème yi bari na ah yaakaar am na waaye mais mu def benn effort pour recevoir au conseil dialogue social ñu mën a ubbi yat jataay boo xam ni mën nañu sax am benn journée boo xam ni de concertation présidée par le par le premier ministre xam naa c'est un très chargé mais boobu ba léegi nag ñu ngi koy xaar. ci audience bi nga xam ni président bi au conseil dugal na ko mais premier ministre boobu ba léegi mi ngi taxawu loolu mooy gàllankoor bi aussi loolu mooy gàllankoor bi nañ ko wax ak yeneen secteur yoo xam ne tey ji dañu am gàllankoor au conseil mi ngi def liggéey bu mucc ayib waaye am na gàllankoor ci wàllu gouvernement parce que boo recevoir syndicat yi ñu wax la seen ñaxtu nga jël ko ba pare pour proposer ay solution pour ñu mën a euh, mën a régler problème yi mais de l'autre côté également ki nga xam ne moo war a ñëw recevoir de vue de bu dul mais y problème. voilà beneen jafe-jafe aussi Sénégal Pape Birame di euh, émigration irrégulière bi nga bi nga gis ni fi ñu toll ni jéggi na dayoo xale yi ñu ngi continuer di jël gaal yi di faatu euh, si si euh, géej mondial solution bi à au niveau euh, national au niveau local est Sénégal tey jii am na solution pour régler maanaam la problématique de l'emploi des jeunes la problématique de la jeunesse est-ce que gouvernement bi tey jii am na capacité am na ay moyens pour régler boo constaté da nga gis échec am na ci wàllu politique de jeunesse ci wàllu maanaam emploi wu ndaw yi ñu ngi malgré projet programme yi ñu tuddee xëy ndaw yi avec plus de quatre cent cinquante milliards moo war a générer plus soixante cinq mille emplois mais loolu ba léegi boo xoolee ñoo xayma bu ñu taxaw taxaw seetlu gis nañ ni bon presque loolu amul benn impact jeunes si bi ñu ngi jeunes yi ñu ngi continuer di jël gaal yi di dem ñii bu ñu amee moyen sax di leen jël avion dem ba Maroc jaar noonu pour dem Nicaragua Euh, euh, jaar Mexique jaar euh, Mexique dem États-Unis États-Unis buntu yi tëju na Mexique kenn mënatu fa jaar ni nga dogalee xale yi di leen agressé di leen rey boo jaaree boo jëlee bateau yi bu la nga jël gaal jaar ci mer bi gis nga li ca xew xale yi ba du jëmb ñu daanu ci biir géej gi mais donc nekk na métit boo xam ne tey ji ah gis nañ ni ci wàllu politique jeunesse ak emploi dafa sooxe loolu nag quelle est la solution il faut ñu toogaat ñu ñu waxtaan trouver solution lay daal problème yi daal bari na tar na tar na ba xam ba gouvernement bi am na liggéey mais dafa mel ni gouvernement bi dafa taxaw bu ñuy waxante dëgg gouvernement bi dafa taxaw affaire yi doxul de. waaw léegi kon yow ban appel ngay lancé président de la république si situation bi fi ñu toll nii bi réew mi toll. waaw président dama ko yërëm président de la république seul il n'est pas assisté il est mal encadré actuellement dama ko yërëm moo tax ñun on lance bu ñu mënee def une confé une quatrième conférence sociale du problème cherté de la vie parce que man foofu laa koy aj rek mu nekk problème boo xam ni euh, premier ministre président ubbi ko premier ministre présidé ko ñu am presque pendant trois jours de vendredi samedi dimanche wala jeudi vendredi samedi dimanche tous les secteurs dañu réunis ñuy passer au peine fin di analyser di proposer des solutions. ak man règlement immédiat. waxuñu buñ ko jógee rek affaire yi la merci beaucoup Pape Birame Diallo ñu ngi lay remercier bu baax may fàttali ni Pape Birame Diallo yaa ngi bokk ci union nationale des syndicats autonomes du Sénégal ñu gën ko xam ci UNSAS jërëjëf.